بسم الله فيني أدار يا الله طريق بقاء بفيك يا الله بسم الله فيني أدار يا الله طريق بقاء بفيك بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان مهتديا فوزي بما تتوفي دنياك يا الله أنت رئيم واسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت رئيم واسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا من بحارنا مليك يميني وقل بزال يا مليك بلا إذا من بيجو من منك يا الله قدرت سري يا قدرت متليا عني وعن كرامي أني بقول قلوبنا كأجل الدم أجل الدم ay jullit dëgg góorgóorlu ba nekk ay taalibu dëgg ay taalibu dëgg dëgg la يا مؤمن في جنة بدر ما قدر وعلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لسعبي سرايك ما قديت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسير عطي بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إمات جبار دون لقم كل الإداء بلاسي لكن لكن انت لكن انت day gën a neex بعدين رجلك كل يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لغمان أصاب الدم بالبيض والثري والرلوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدعونا سم وخند الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا رياض المكر يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا وابو يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا الخضار يا الله خاف لي ربيعك دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فخمت ألتي فلا كسب ريايا وأبحي الله لغوت أزمان الذي يعمل أموره وغوت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله علمتني القيبات فعثت منتميئا أتى الأليم لاسم علمت يا الله خبرت يا قابل أسرى وانصرفت لخير نبياك الأدار يا الله نكل نكل انجرك نكل انجرك دي جنا نهرك دي جنا باخ دي جنا سل دي جنا bàjjana rek nag bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn أعمال لي بريضا فاذكر مبعثتك دارين يا الله قبلت يا قافل أداء لي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله رواك يا رازي الدارين مرتبتي بلا انقبال بفضل منك يا الله رواك يا رازي الدارين مرتبتي بلا انقبال بفضل منك يا الله رواك يا رافع الدار مرتبته بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت ثلاثي لا تطعي تطعي خلال ويسا واحد بل فيك يا الله عسى المسل لاسي سلاليستي الانس والجن سيطان يا الله انت سبيل لاسي ناجت سمانا وبالمصارات لي قد جدت يا الله انت البصير لاسي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 ما الغيب يا الله عثر الأليم لاسي صحصح تجملة ما لم تر لأم بقير دهر يا الله عثر الأليم لاسي بان دسامته لخوت فلن أسي من منك يا الله لقد لقدت مغفرة مع طيور بلادي عنك يا الله أنت شكر لاسي كلي لديك ريدا ولي سكرت جنبي أسا يا الله أحليك لي لكن أبدا بخير مكر ودين على التحيا الله أرضى كبير لاسي بانت كبارة لي خطفل لي خط من ككبي على الأجر يا الله أرضى كبير لاسي بانت كبارة لي خط من ككبي الرجيم يا الله عطل أفي ثلاثي وجات في أباد إلى سواك الإيداع والضر يا الله أنت المقيت لاسي خلقت لي رقادا بلا إصاب إلى الجماعة يا الله أثر أسيب لاسي قد اكتفيت به عن الإدعاء والآسى والكد يا الله أتى الجليل لاسي ساخ جلالته إلى سوى لدى دارين يا الله أنت الكريم لاسي قد وهبت لي كراما دنيا وأخرى مع تسير يا الله أنت رقيب ناسي بعنت يا نسول أنت ورلوان يا الله أنت المجيب ناسي قادا بخيرا جابة من كالي لاخترت تحيا الله وإنك الواسع والباغي ولي أبدا توسعة بالإبت يا الله أنت الأكيم الذي أبلغتني لسوى عفاني وما أو تسوء يا الله أنت الودود لسين خاد المواد سرمدا بريلا والقرب يا الله أنت المجيد لسين بان المجادة وخدت لي منك مجدا فاخ يا الله وإنك البعيس المقيم بلا ضرر كليتني جملة الأدار شاء الله أنت سيد الأسير هذا لبيت رأيك من نساك يا الله يا خلص بيئة وجملة ما لم تر لي مطلقا بالفضل يا الله يا قليل أبي أقل وجملة ما لم تر لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدم والجلبية كالخلق يا الله في الحق والجلبية كالخلق يا الله في الحق والجلبية كالخلق يا الله في الحق والجلبية كالخلق يا الله في الحق والجلبية أنت الخلق يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بيك في الدم والتلبية الخلق يا الله أنت القوي ناسي هويتني بردم في سر والجنية فالأمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنن ولا توجئون مكروه يا الله أنت الولي لاسي لا أبتقي بدلا بي ولي كنت بالتعميل يا الله أنت الأمير لاسي أنت الأمير لاسي وجاءت لي أمام بعقوب وخير المكر يا الله أنت الولي لاسي لا أتقي بدلا بي ولي كنت بالتعبير أنا يقول قلوبنا كأجل الدم أجل الدم ak jullit dëgg góorgóorlu ba nekk ay taalibu dëgg ay taalibu dëgg dëgg la وخير المكر يا الله يا موسي الخلق والأسياء جملتي تليتني دراما أحسيت يا الله يا مبدع الخلق يا لا وجودي ما لا أهم بنادي تنكح يا الله مريد مدى أو بالخط لي كراما في كل سهر ويوم من فيك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم بركب برمتوبا bismil xadiimi tey ma way 18 safar mi tee ñu tàbbi naari cey 18 safar bismil xadiimi tey ma way 18 safar mi ñu tàbbi naari cey 18 safar xamal ni yow 18 safar moo jara waaj moo gaa yi ñu bett nañ ko teel a waaj xamal ni yow 18 safar moo jara waaj moo gaa yi ñu bett nañ ko teel waaj weeru safar moy wer wi gën ci wer yi 18 safar di bis di gën ci bis yi 18 safar moñu musal moo ñu amal luñ amutoon moñu sagal sëriñ bi moko ko njëkk def man ko defee njëreem fa kër gu mag ginaaw bam ko defee la diglé képp kuy murit muy magal 18 safar ngir sant buur bi déggal Ahmadou jaw Pakha borom pas-pas ba mom la ku baax ki sa wax bu ahmadu jaw pa khabarom pas-pas ba mom la ku baax ki sa wax bu bis ba li tambule ci aginar ba ci lu ngeen ci am bu bisba ba na ci dem dadi ni waju ko amul bu bisba ba xéewal gu ñëw lekkal ba suur ci boba boko ko mel nga ni yow ku dundal 18 safar ci ci selal xamal ni yow lekk ba suur dix-huit safar ci la ko bàmba mosa digle cey safar aljana sax dix-huit safar neexaay ba day gën a yokku ba ñu xam ni bis ba aljana sax dix-huit safar neexaay ba day gën a yokku ba ñu xam ni bis ba sawara it lu man di tar dix-huit safar tàngoor wa day wàññiku cey dix-huit safar màggal gi miim nga moo di mawlidin nabi di kasuraja jabin yin bi magal gimim gamo di maulidin nabi kasura jabin yin bi lam gadi laylatul qadar ko magal diswi safar bole nga seeni yew jël murid bi waaj ko lo amit jëmale ko diswi safar ta lo ci def nga fatte ko murid bi waaj ko lo amit jëmale ko diswi safar ta lo ci def nga fatte ko sëriñ musa ku magal bisba aj màkka xumra am nga ñoom seen yool ba ganaar xarak ba yëg nagak gëléem lu ñëw def ko ca bis ba xeb ko lool te bul ko naw ganaar xarak ba yëg nagak gëléem lu ñëw def ko ca bis ba xeb ko lool te bul ko naw lëgak xeteeki xetiroon na lépp ñëw uwaat kinaar ak koppi nag bi tax na ñëw bul fàtte jën yu mag yi ak yu ndaw yi saafal yu mag yi daal di sóor yu ndaw yi ci bu ñu nee suba la ndaxte ceebu jën moo war a jiitu ku ko togg mooy li gën bu guddigee nga togg kuskus ak cere te ñeex ma it na ëpp ak soos bu bari bu ku nek xol ba ko ca neex mu reer ca ba sur nga tangal meew mu neex mu naan ca bu gan ñi ñoom dalloo ba xey nga xamni moy bis ba seggal kafe yow joxaane bu gan ñi ñoom dalloo ba xey nga xamni moy bis ba seggal kafe yow ak meew mu neex ku nek naan ba ko ca ya neex na nga ca def lu neex lu melni beur sokola mbaa kur na buuf kasaayi ndékki li na doon na lu bari lool te neex woyof gum nii na niin na doon salaat bu bari soos te diw ga yem ak pomputeer teg te ginaar ak yi nenam te boole ko ay sase ndox yu sedd lool si ngom alif yit bul ko fàtte baax na lool séddale leen ko jox ku nekk ab paquet buñ xéewloo ba noppi dajji seen paquet buñ jëyee ba dal boori yor yor nga indi caagiri yu sedd lool tafar buñ jëyee ba dal boori yor yor nga indi caagiri yu sedd lool tafar ku ne watam buñ ca xéewloo ba noppi buñ génn nañ fa toog ba añ ya noppi toogal fi ñoom di leen bégal di waxtaan bu kenn mer na ñépp di reetaan Waktu disbar wa buñ jullee ba noppi nan dallu tuuti fekk añ ya noppi nek nek len ci rek nek len ci rek day gën neex rek di gën a baax di gën a di gën baaje na rek nag bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu len xamal ni yow di si safar mo jara waaj moo gaa bu ñu bet nañ ko teel waaj weeru safar moy weer wi gën ci weer yi 18 safar bi bis bi gën ci bis yi 18 safar moñu musal moñu musal moñu amal duñ amutoon moñu sagal sëriñ bi moko ko def man ko defee njëriñ fa kër gu mag ginaaw bam ko defee la diglé képp kuy murit moy magal 18 safar ngir sant buur bi déggal Ahmadou jaw baxa borom pass pass ba moom la ku baax ki ahmadu jaw paxa borom pas-pas ba moom la ku baax ki mos wax ku bis ba li ci akinar ba ci gelem lu ngeen ci am bu ba na ci dem ko amul bu bis ba lekal gu ñew lekkal ba sur ja boba boko defé mel nga ni yow ku dundal di ci safar ci magal ak ci selal xamal ni yow lekk ba suur dix-huit safar ci la ko bamba mosa digle cey safar aljana sax dix-huit safar neexaay ba day gën a yokku ba ñu xam ne bis ba aljana sax dix-huit safar neexaay ba day gën a yokku ba ñu xam ne bis ba sawara it lu man di tar safar tàngoor wa day wàññiku cey dix-huit safar màggal gi nga moo di mawlidin nabi Kaf di kasuraja bin yin bi magal gimim gamo di maulidin nabi Kaf kafgadi bin yin bi lam gadi laylatul qadar ko magal disi safar bole nga seeni yiw jël murid bi waaj ko lo amit jamaneko ko disi safar ta lo ci def nga fatte ko murid bi waaj ko lo amit jamaneko ko disi safar ta lo ci def nga fatte ko Serigne musa Gane ku bisba bisba Ajma ka hamra am nga ñom seen yool ba ganaar xarak ba yek nagak gelem lu ñew def ko ca bis ba xeeb ko lol te bul ko naw ganaar xarak ba yek nagak gelem lu ñew def ko ca bis ba xeeb ko lol te bul ko naw lëg ak xëteeki xëtiroon na lépp ñëw uwaat ganaar ko pi nak pi tax na ñew bul fatte jeen yu magi ak yu ndaw yi safal yu magi daadi sur yu ndaw yi ci buñu ne suba la ci bu jeen moo war a jiitu ku ko togg mooy li gën bu guddigee nga togg kuskus ak na ëpp bu bari bu guddigee nga togg kuskus ak cere te ñeex ma it na ëpp ak soos bu bari ku nekk xool ba ko ca neex mu reer ca ba suur nga tàngal meew mu neex ñu naan ca bu gan ñi ñoom dallo ba xey nga xamni moy bis ba seggal kafe yow joxani bu gan ñoom dallo ba xey nga xamni moy bis ba seggal kafe yow joxani ak meew mu neex ku nekk naan ba ko ci neex mburi ya na nga ca daali def lu neex lu melni ni ba mbaa sokola ba fromage ba korna bu nga saa yi na lu bari lol tan neex woyof gum ni nanin na doon salaat bu bëri soos te diw ga yem ak pomputeer teg te ginaar ak i nenam te kook ay sase ndox yu sedd lool si ngom alif it bul ko fàtte baax na lool séddale leen ko jox ku nekk ab paquet buñ xéewloo ba noppi daj seen paquet buñ ko yee ba dal boori yor yor nga indi caagiri yu sedd lool tafar buñ ceyee badal lu boori yor yoora nga indi caagire yu sedd lool tafar ku ne potam buñ ca xewloo ba noppi buñ génn nañ fa toog ba añ noppi toogal fi ñoom di leen bégal di waxtaan bu kenn mer na ñépp bég di reetaan waxtu tisbaar wa buñ jullee ba noppi nan dal lu tuuti fekk añ noppi ndànk rek. sëriñ Tuubaa nu ko baaxe sëñ Muntaxa sang bi Mbàkke ñun yaa ñu neex. Sëriñ Seexra Faal Sëriñ Tuubaa nu ko baaxe al muntaxa sang di màkke rafet na yal na la yàlla aar la fal sañse nga jaayul te daagu walli la yàlla def te neex na bisu mbégte la bisu cant la bisu féete la fa màggale njëkkukaay sunu xol yi day bég ci bépp jëfam sëñ tubaali lay ñaan kii nag ñu fulal atam junni bi ak doyu noo ndax Mbàkke bal jëfam muri tegal kafe gi ñu sant tey naan sant sëriñ Tuuba rek a des ci jamono muri tegal kafe gi ñu sant ka demoon géej ba julli biir géej borom jumaay géej a demoon ñëwaat indi kafe ge murit tegal kafe gi ñu sant tey naan tey naan sant Sëriñ Tuuba rek ka des ndey jamono siise wutal sa tarmuus na tàng tey suus koo gis mu siisoo xanaa musul sunu kafe gi murit gis mu mer daa amul ku mel nii ku mel dañuy ba nekk ay julli dëgg ay julli dëgg ay julli dëgg góorgóorlu ba nekk ay taalibe dëgg ay taalibe dëgg dëgg la sunu xel yi daa ndax ki nu àndal ku ànd ak moom jag ëllëg jag jamono murit tegal kafe gi ñu sal ci njama bamba defar na suñ fii defar na suñ fee ni fii di neexee fee ya ca ajana murit tegal ka tegi ñu sant tey naan tey naan sant Sëriñ Tuuba rekk a des moo sama waaji bu lépp bu baaxee looy ak mooy ku bon du door teraanga mooy yar ak tegin la nobul bu mag la jagar mi gor la toyal bu wér topp ñu rëccëm ya sëñ am